Ali wusila di responsable APR dekk fi ci Touba Madiyana don amal nak tay ab conférence bu mag bu am solo mbollem politiciens yi nga xamne ñom la bokkal dekk bi ñom ñep tewé won nañ ko Cheikh Abdou Bali Morlo ak mbollem ñi nga xamanteni ni nii Moustapha Cissé Lo yabal na len ngir ñu tewé ci conférence bu am solo bi waye nak ci biir conférence bi Serigne Ali wusila mo fi defati lu am solo mo fi defati lu am mana ndax dafa dajale mbollem handicapé yi nga xam ñi ngi ci dëkk bu sel bi di Touba may leen ay toni ceeb may leen ay toni sucre waye it may leen ay ma ju bare bare bare loolu nak muy liggéeyub social bu am solo bo xam ñi dëkk ci Madiyana gep sédé nañ ne non yi la dëkkee ak ñom waye it ñi dëkk ci bir Touba gep sédé nañ ne Ali Sylla kuy dox ci social la. loolu nak tax bi nga xam conférence bi jeexna mu jox handicap yooyu nga xamanteni ni ñoo ngi dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba waye nak bimu leen ko joxe ba paré tek na ci lenn ci ay cadeau waye nak ki nga xamne mom mo jité handicapé yi it moom itam na ay cadeau yu am solo ci fasiyene jappalé Allah ci la ci mbolém li nga xamanteni ne bëgg nako ci dëkk bi bu dee président Macky Sall taxaw nañ tém ngir jappalé ko ci mbolém lo xamne dal Allah ci la joxagn nako dal ñom ñi taxaw nañ tem ngir jàppale ko ci loolu ndax koo xamul nu mu lay def niñ ko def a tax kon mbokk yi ñu ànd teewlu sëriñ Aliou Sylla soo noppee ñu ànd teewlu ki nga xam ne moom moo yor kàddu ànd sababu joxe bi moom mu ngi nii rek weeru koor lañ nekk tàng na métti na nag waaye li ñu amoon yéene mooy ñi nga xam ne am nañ yéenay dimbali leen mooy comme ñu mel ni ñi madun caam mi ak mbootaayam ak ñi àndal ñëpp ak ndongay daara yi nga xam ne dañuy mat na 10 tonnes ñu fas yéene leen koo séddale ak képp ku nga xam ne néew li ci yoole nga te nga xam ne yaa ngi war te na la mënoo sa bor ñu fas yéene ñi teq teqantal ko ndànk-ndànk kenn ku ci ne la ciy sawaalu ñu fexe ba nga jot ci loolu bi nga leen jox ñoom quantité bi ma leen di jox ñoom dinaa leen jox une tonne ñoom waa xam nga tur sax bëgguma ci di jaar ba xëy na handicapé mais nag comme yàlla moo leen ko teg te xëy na ñun tamit nu ngi dund dara jombagul ci ñoon bëggumay jaar ci loolu yéen laal jun am ci ñoom la parce que yéenee joxe muy benn intone bu ñu jël ko ci loolu itam

ñoo ko ñoo ko tuddee donc yooyu am na ci Touba gi bëgg li bëgg dégg nañ ko ci conférence bi conférence bi Macky Sall ko soxal man mi di wax ak moom soxal moo ngi soxal te ñun handicapé ñoo ngi représenté 15 pour de la population ñun dañuy fal ma nañu fal mën nañu fali dafa am nag ñu ñu xeeb nag fii ci réew mi ñoo xam ne électoral handicapé dañ koo gëm dañ koo wóoluwut ca ñun ñoo ngi représenté 15 pour cent téeméer bu jël handicapé fukk ak juróom li ko bëgg wax ko bàyyi àlla li ñu bëgg ñu defal ko ni ñu ko bëgg ak fan ko bëgg ñu doxal ne Macky Sall fal premier tour kenn bañ lam-lame engagé wu nañ ci kanamam laax lépp ci Macky Sall ak lu mu ko jar bàyyi ñun jaral nañu ko